internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. internet yi bàyyi xel ci seneinfo.net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas leen defal tënkub xibaar tey mardi di 15 novembre 2022 ñu tàmbali kook xibaaru biir réew mi. député yu assemblée nationale nag euh, jeudi bii ñu dëgmal ci la ñu war a tàmbali kon li nga xam ne moom mooy marathon budgétaire bi euh, ñoom nag euh, ñu war ko ubbee sax nga xam ne moom mooy ministre des finances et du budget mi nga xam ne nag kon moo koy njëkk a teew si ñi di jawriñ yi moom nag ñu war ko kon laaj daal ci lu jëm ci nga xam ne kon ci li nga xam ne moom mooy. ay recette dette publique wante itam budget yu yi ñu wooyee pouvoir public yi muy présidence de la république assemblée nationale au conseil des collectivités territoriales conseil économique social et environnemental cour suprême conseil constitutionnel cour des comptes ak primature garde des so ministre de la justice di Ismaïla Madior Fall ànd ak nag euh, ministre intérieur di Antoine Félix Diome ak ministre de la défense maître Sidiki Kaba bésub tey bii nag euh, inauguré na li ñuy woowee centre de surveillance électronique bu Sénégal muy lu njëkk ci Afrique de l'Ouest loolu nag euh, day sax ñëw daal jëmmal li nga xam ne moom la ñuy woowee placement sous surveillance électronique wala boog bracelet électronique te lii di nguurug Sénégal nag fas yéene ko def ngir daal euh, mën a wàññi nit yu bëri yi nga xam ne day faral di am euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, prison yi. gendarmerie nationale dañoo xam ne nag euh, ci ab opération boo xam ne ñu ngi ko amal ci guddi dimanche jàpp lundi fële ca pôle urbain bu jam ñaajo dañ fa doon jàmmaarloo nag ay defkatu ñaawteef yoo xam ne dañoo yoroon i ngànnaay nekkoon ci ab 4-4 ñoom nag dañoo ñëwoon foofu ci installation yu nekk ca pôle urbain ba kon daal euh, fas yéene woon fa amal daal euh, seeni ay mbir ca ginnaaw ga nag kon la yem ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy patrouille bu gendarmerie ba bi loolu amee nag kon dañoo génne daal seeni i rek di dóori bal ñi nga xam ne it ñoom ñooy gendarme yi di fayu euh, ci boobule euh, mbir ci biir nag weccante bal yooyu ci la ñoom gendarme yi faat euh, kenn si def ko te ñaawteef yooyu ñaar itam teg nañ leen loxo. xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy fële ca Nigéria foofu nag groupe terroriste boobu ñu naan Boko Haram. ñoom ñoo fa faat ay jigéen jigéen yoo xam ne nag dañ leen di jiiñ euh, nitu guddi gannaaw bi nga xamee ne nag kon dafa am ay doomu benn commandant terroriste ci état bu Borno yoo xam ne dañoo euh, faatu euh, foofu nag di Nigéria nga xam ne nag kon ca nord ba dafa am ami jullit ca sud ba am ay chrétien ñu ne nag ay jiiñante yi ni mel dafay faral di am xibaaru bitim réew benn ponk lay doon muy nag sommet G20 bi nga xam ne mu ngi am fële ca Bali ca Indonésie njiitu réewi àddina nag di fa daje ñuy waxtaan nag uh, wàllum uh, économie ak crise mondiale bi nga xam ne fi mu nekk nii dafa am waa Fonds monétaire international nag uh, ñuy xalaat ne daal li nga xam ne moom mooy ab insécurité alimentaire kon di ak xiif wala bokk lu dayul ci ak dund dina am ci dëkk yu bëri ci àdduna bi li nga xam ne it moom mooy guerre Ukraine ba donte sax boole ko ci agenda ba njort nañ ne dina fa am ab waxtaan boo xam ne kon dina dajale ay njiitu réew ya eh, ci guerre Ukraine te ñu ne sax dinañ ko ubbil ay njiit yoo xam ne njiitu réew Afrique lañu. dañ koy jeexal ak xibaar sport suñu gaynde yi nag équipe nationale fi mu nekk nii xam ngeen ne ñu ngi fële ca Qatar di waajal li nga xam ne moom mooy coupe du monde bi ba su démb nag amal nañ seen séance entraînement bu njëkk fa ñuy wax euh, Al Duhail handball arena nekk foofule eh, ca Doha démb nag ñi nga xam ne ñoom ñooy Pathé Ciss ak Boulaye Dia fekki nañ leen ba su tey bii nag juróom benn joueur dinañ leen fekki ñoom nag li tax ñëw ñu wan rek doon football euh, ci dimanche bi euh, muy Krépin Diatta Bamba Dieng Pape Gueye Ismaël Jacobs Pape Abdou Cissé Fodé balo Touré ñoom nag bu ñu fekk see kon euh, lii di équipe bi groupe bi daanaka kon day mot ndax dinañ doon vingt cinq kon kii di Sadio Mané rek nga xam ne dafa amee blessure moom mooy manqué ci appel bi loolu ñu tey ci xibaar rap seen teewlu lu jox di ëllëg jaa ngeen